suñu borom. fas yéene wax li nga xam ne mooy dëgg rek duma ma wax loo xam ne du dëgg. du ma faral Pape bëgg lu neex sama doom tax ma waxal Pape loo xam ne du jikkoom. bëgg du alaay lu neex alaay tax ma wax alaay loo xam ne du jikkoom. yàlla rek tax may moo ko laaj dañoo yàgg nañoo jot ndax seen doomu njaay mi nooy wax noonu xeex bi. Mm-hmm. boo ko taxul woon sax ñu ñu inalante. Mm-hmm. si affaire u xar lañu commencé ndax alaaji ku ne nga am sa gétt bopp alaaji dafa yeewu xaram yeew ko teg palaasam paa bu bëggee wut alaaji rek day tekki xar mi mu fekki xar mm-hmm. ko kaay takk sa xar mi moo ko kenn moomu ko waaw alaaji ni ko nag su ma fekk su ma fekkee dee xar mi fii fii sama place dinaa ko diri yeewu ko yeewu ko sa place mm-hmm. ñu coowaloo noonu mu ne yow booy dangaa réew waaye dinaa la yar loolu dinaa la dóor sama loxo dina daal. laaj na ko boo dee yàlla tawale xam yow mënoo si man dërëm waaw ñu bàyyi noonu presque toog nañu at yoo xam ñoom du ñu waxante. Mhm. atu yàlla du waxante ku la ngay room alaaj bu seenee pape di ñëw sax day yéegaat ba pape yéeg mu soo a wàcc. dëgg la bu fekkee bu fekkee pape di wàcc ba alaaj di wa di di yéeg di wàcc day wàccaat. taxaw si boo kii miir bi ba Pape Diallo dem si yoonam. mu mm-hmm. soog a yegg mm-hmm. waaye benn baat bi ñu koy digal rek heure bu kii yee da koy sànni di ko yow tàng yow da dellu maa daw tàng tëju si kaso bi man du ma am lu ma neex. moom seen dëkkandoo moom Pape mm-hmm. la am lu ma neex rek yow dama lay tëj si kaso bi ba pare ma neex te li ma lay wax bu fekkee ne da nga ko weddi nañ dox ba ma génn kër gi bis ma doxoo xamal ne yow bis boobu yaa ngi si biir kaso bi. alaaji koy boo dee yàlla tawali xel yow mënul si man dërëm. man jaay ma yàmba sàcc ma fenu ma jaay ma doog kon mënoo fexe ba tëj ma si kaso bi mhm. waaw foo jaay ba tëj kaso bi mënoo ko ndax man li ñuy li li li ngay li ñuy def yëpp man def ma ci lenn xëy soo wéeg ko sama sax dem liggéey wàcc ma dugg sama néeg mu ko su ma nee danaa tëj si kaso bi danaa tëj si kaso bi alaay bi ma sama yaay wax si pap bëgguma am ak moom problème problème ndax bu ma tasee man di wax danaa tëj si kaso bi danaa tëj si kaso bi mhm. bëgguma am ak moom maa ngi ko nag loolu bu si coow nit boo koy tëj booy tëj ci kaso day fekk yow. nga def dara. nga am loo def waaye yow li ñuy tere li buur di tere lépp defoo ko yow bañ nga koo tux sax doo ko def kon fan lay jaar ba tëj la ci kaso bi. Mhm. kii daal yooyu ay waxam di wax bàyyi ko mu dem. Mhm. maanaam li muy wax yëpp mosoo leen gëm wax ji. man gëm man sama jëm bopp man. Mhm. gëmuma ko. dëgg la ndax yaayam ci jëm boppam man dama am yaayam jàmm ak salaam. yaay ki ko tuumaal. yaayam ki ko tuumaal mais caama. damay am fii xew sama goro yëpp ku ci am doom xew bi moom moo koy yor ci biir kër gi du ma def lenn loo xam ne ñoo ma ko méccaama lii laay lay def wala lii laay def maanaam dëkkin bu rafet daal ngeen dëkkoon dëkk bu rafet lañu dëkk mm-hmm. pape mii xayitu rakku magu alaaji bu njorge dafa feebar xayitu benn bakkanam la bu ñuy dem tuuba ñu ñaari sama doo bëggoo taximaan la pape alaaji la su nee alaaji kaay dugg si oto dugg si oto pape dugg mook pape ñooy pape day jël gaasuwaar mook amba ñu dem tuuba bu ñu ñëwee ñu dal lañuy bokk dal moom jabaram ji avant muy takk jabaram ji sax jabaram si que suñu dal la doon dal at bi passé màggal gi passé moo jabar ji ñu ba diis suñu dal la dal teg moom mi mu tuumaal bu añ pare ba ñuy ba sëfi di seet ba sëfi di seet da leen di jiital ñu damaa am ay gan añ yi fa lay jëkkee fa lay jëkk fi séddale foofu ba mu egg tegaleen boisson tegaleen ndox lépp soo ko wàcc demaat feneen mm-hmm. waaw yaa ngi dégg kon pap àllaaji mënu ko def loo tey bu ko àllaaji defoon tey loo xam ne lu ko metti la sax man dafa ñëw ba si man mhm. mu ne ma mu ne ma mais Ndiaye àllaaji mii de def na ma lii ak lii ak lii su boobaa dootu amati mhm. ndax man du ma ko du ma du ma ko sant sama sama jëm suñu borom laa koy sante yàlla may na ay doomu góor dong la ma yàlla jox musuma am jigéen waaye maa ngi sant suñu borom sama doomu jigéen yi sama doomu góor yi yàlla jox nañu ma cër yàlla def na def na si man cër boo xam ku ma ne yemal fii di nga fa yem mu yem fa ku ma ne toogal si di ko ku ma ne kon mosul ñëw kalaame la mosuma kalaame alaaji dem di dem seen tool yi xam si si suuf la kaw la jógee ñëw si suuf mu koy mu dëkkal ko dinaa dinaa la teg dinaa la teg alaaji nag loolu day metti xol bi soo xamee ko yow kii mënu laa tey ba ko foofu muy wax kii day wax waxam rek yaa ngi dégg kii bàyyi ko foofu muy wax bu waxee ba sonn xanaa booy tëj ni day fekk ngay def dara yow defoo dara looy loolu bu mu la bu mu la metti mu bi ñuy waaj a tabaski mu toxu alaaj ne fan yoo ñetti fan lañu fa teg ma wom ko fekk alaaj di yéeg alaaj bàyyi moom mu ne ko taxaw bi dellu ngay yéeg di ma xaar yow nee naa tëj si kaso bi hmm? dëggal taxawal ni xam ne maa ngi toxu yaa ngi si kaso bi alaaj yi saago ko ñu ko mënul si man dërëm boo dee yàlla tawal xar waaw dara nga mënul si man soo dee yàlla tëj na si kaso bi hmm. seedee yàlla ñu bàyyi noonu ma dem Tours ñëw dafa mel sama dama ko sànni fan boobu tabaski nañ ba pare alxamis daka si ñaari alxamis la mhm. ñetteel alxamis lañ ñëw ma toog Tours ba mu yàgg daal mënumaa toog ma jox ma jox Aminta sama ndax ni ko téel ma ko foofu ba bu ñuy raabee nga na tànn ma ñëw dugg si biir bi may dugg rek laa gis auto police bi di doraate ñu taxaw si buntu kër gi hmm? waaw man tamit ma ñetti ñetti escalier yi jiitu leen ba ma leen jiitoo xaw ma ne fu ñuy dugg xaw ma sax sama kër lañ ñëw ma gis Pape Sini ci boppam ji moo jiitu ba mu jiitu dafa ñëw ba ci biir kër gi waa ko nuyul kenn salaamaaleykum mais dafa mel ni sax moom mooy borom kër gi wala mooy mooy mooy mooy mooy mooy alkaati bi waax ba a nga nee waaw mu waax ba ca biir néeg ba fëgg ni bi dina am yaram ni ko ngi nii ko police no so ko police man lu ma ah def ba moo la woon ma ko doo dem ndax indi ndax ndax ba nit xanaa boo ko mu ne ma yaay mu fi tex ni ma bàyyi ma man yoon moom ma woo damay wuy yoon ndax bu ma yoon woowee dama de wër si yoon damaa war a dem yoon ndax man sàccu ma fenu ma jaayu ma yàmba jaayu ma dorog reyu ma nit kon dama leen dem wuy ji moom mi ma moom bi ma ñëw ba ni ba signalé ma ni maa ngi nii naa dem wuy ko léegi alaaj dem léegi man ma ñu nekk foofu nekk foofu may fekk alaaj si di jël taxi fekk ko fa man koy alaaj yow loo def mun ma yaay maa ngi yow ñoo ci bokk yem man defuma dara moom mi ma fi indi nag dina wax man lu ma def ma di ko ah mu ne ma yaay eh, déggoo ma man defuma dara xaw ma loolu lan la moom ma indi kay dina ma wax li ma def man tam noonu ma génn dem ci ci ginnaaw jën ndox pare naan jën bidéo baas naan pare toog foofu nag tuuti boobu sama xol bi boobu mi ngi fat ma toog ba ñu julli timis ay génnoon ma gis magam bu ki nga xam ne mooy xaytu paap bi di juwax jël loxo bi doosi mi ma koy eh, baakay ma ñëw moom boobu jotul la wax ak euh, paap benn yoon de ma waxul ak paap benn ndax su ma déggee ci say explication euh, ci début bi ñoom ñaa ay xarit lañu mos sa doon. benn bakkan paap ataaya lépp ci kaw la koy defee lal basangam génn téléem. de nga man li gën a gàtt tuuba paap dal suñu dal mooy seen dalam amul dal suñu dal lay dal. Mhm. waaw ñun dañuy bu dañuy gont bu dee dañuy bàyyi ba ay guddi ñu gont ñu xëy ñu si guddi ñu daw ñoom si dañuy bàyyi ba fajar ñu daw fekk topp. Euh, léegi léegi lan la ñu teg ci loxo magam bi mu fa jógee. léegi ñu ne alaay dafa dafa violé doomu magam noonu fa ay baakari mi di yuuxu di tëb di daal man ko violé mu ne man ko boobu léegi ñaata at la ñu ne ma ñeenti at président ni ma këyit bi jógewul fii Guinée la jóge signature bi ñu ci def ak numéro téléphone yëpp fi nañ ko def waaye Guinée lañ ko jële ma ne ko Guinée mu ne ma waaw ma ne ko certificat médical bi jógee Guinée xanaa gine sax boo dee boo daw dugal fi daw ba dugg Guinée duñ la jàpp réewu jàmm ku lay waaye nga nga ne certificat américain la jógee ñu ñëw fekk sama doom ci kër gi ñu yenn yóbbu ñu bàyyi suba sa ñu ko avocat magam bëggoo jële ko avocat jële ko fii yóbbu ko bu géejawaay bi dañ ko jële bu géejawaay bi indi ko euh, tribunal géejawaay bi mm-hmm. moo jàkkaaroog procureur bi bis boobu jàkkaaroog moom ñu indiwaat ko police kii bi police Guédiawaye bi mu nekkaat foofu ba lundi bi ñu ne dañ ko indiwaat si mu jàkkaar producteur bi ba mu jàkkaar producteur bi nag dañ ko soog a def boo boobu yëpp gis ngeen ko yéen bon ñu man ñu ko yóbbu añ mais yaa ngi ko doon gis maa ngi koy gis nii euh, lan la la jot a wax ci li nga xam ne moom lañ ko wax ak xale bi ñu ne moom lañ moom la tuuma So. Ay ayva. boobu ma gis sax ni ma yaay pap bu leen ko wax dara pap bu leen neex ngeen baagal ak ak papa bu ñu xeex dañuy bàyyi leen ci loxo suñu borom yàlla yàlla dina leeral lépp waaw moom mi ko tuub la tuumaan lii yàlla dina leeral lépp mu leer bu leen xuloo bu leen xaax xeex xëy na tey ndogal gii yàlla moo bindoon ni damay tëdd dama ciy jaar ndax dama nangu naa ko nangu naa man yàlla moo dogal lii mhm. te nag du sama kaw du sama coobare bu doon sama coobare moo tax ma tëddi kaso ma xam man du ma tëddi kaso mhm. ndax ma def loo xam dama ko tëddi kaso waaye ci coobare doomu aadama la jaare ba ma tëdd kaso mhm. dama koy fas yéene nag nangu dogal xam ne nii dogal gii yàllaa ma ko teg dama koy nangu waaye pap dama koy bàyyi suñu borom yàlla dinañu àtt bëccëg mu ba bëgg de ba papaam seetee tamit ko loolu la waxaat papa man ku gëm yàlla laa damay nangu dogal pap tuuba gi ma tuuba yàlla dina ma àtteeg moom mm-hmm. ndax bi ngay néegee nit lu bon mu bëtiku këpp waat sa kaw mm-hmm. waaye man yàlla dina ma àtteeg moom mais lan la leen wax ci affaire viol bi bañ ko waxee dafa ne ma yaay man ku indi kaamil ma jël sama loxo dóor ko ci kuy indi ma jël sama loxo dóor ko ci man man xale bi sam musuma taxaw sax mu wax ma wax am na benn sekku bu nekkoon fee mhm. sekku boobu yàgg na fi ba mu fiy nekk sax boobu moom day taxaw seen buntu kër gi alaaji bu jógee 7 heures bu jógee 8 heures ba dem su duggaatee fii laa wax ay 11 heures ndax comment lay liggéey day ñëw ñu woo ko mu wikkaat saag dem ñu ñëw woo ko mu wikkaat saagam dem kon kooku fan lay jaar ba fii la ne doomu aadama mhm. si kaw fii fan lañ fa mën a fii la nit ah mu ne si kaw terrasse nee kaw ngeen ngeen yéeg ngeen xool nee si kaw li ko virale si kaw amuti néeg amuti dara nan ngay ay mbalit lañ fa rangé su dee ba ñu borom sayet bi mu wàcce foofu fan nga fay virale ay nit ba fa viré doom jàmbur mhm. mu am ñeenti at biñ ko viré léegi léegi nee na am na ñeenti at ñeenti at si rek ba xale bi dem Guinée xale bi ba mu fi ñëwee ñibbi na xale bi ñetti at ñëwul papa moom ma lay wax heure bu ñëwee fii bu jógee fii ak tabaski mu njëkk tabaski fii ba wax ma a bii dee ba ca topp fii la tabaskee moom ak yaayam ak ñaari doomam yu góor mhm. papaam daf maa fekk ba fii mu yëkkati junni jox ma ni ma sa sëy xam nga di nga dox di dem di wax ci télé di di nga dell la dékk micro sa xol dina fees seet yoo xam ni lu bëri doo ko doo ko mën a wax mhm. da nga koy da ngay dem ba sa xol sax day fees li nga bëgg wax waaye day fees bu heure bu ñëwee papaam di ko si sukkandiku junni la may jox est-ce yaa ngi dégg kon kooku defe naa bu ñu. maanaam dëkkandoo bu yàgg la woon dëkk bu dëkk bu dëkk bu baax bu rafet bu rafet. Mhm. Pape mii day jënd ay bonbon lépp di jox sa waa di jox doomu xaritam bi ñëw sëñ Fallou mii dagg xaalis jox xale yi kon kooku een bu yàggal si alaaji eenal na alaaji bañ na ko xëy na mbëgg koo dugal si kaso bi tëj ko ci. Mhm. tëj na ko ci kaso bi nag man dootuma jooy de. boobaak léegi gisoo pap fii lay jaay otoom teg musique am di taxawaal dëkk bi di def lu ko neex waaye sama doom xëy na fa nga am am ñoom problème wala dara waaye ñoom ñi am mhm. am kilifa ñii mhm. seen papa nee ma leen xulóoloo ma leen bàyyi leen lépp si loxo yoon ci loxo yoon te lépp dañ koy bàyyi si loxo yoon yoon nag moom am na si réew mi mhm. dañuy bàyyi si loxo yoon yoon day def liggéeyam dañuy bàyyi yoon def liggéeyam ba kenn yàlla di leeral doy na wax waaye pap si jëm boppam dama gis loo xam ne man sama xol la dagg doom joo xam ne sama doom yëpp hélas laaj ko ne boobu mi def sama doom bi bëgg na ma bëggeel koo xam ne ci man su ñëwee fekk ma feebar sa xale bi amatul jàmm barke Seydina am xam ne amatul jàmm lu ne lay jënd yaa nga ma ataay yaay da nga def da nga def naa yaa ngi dégg kon pap xëy na loolu mooy ma tool diggante sama bopp su may taxaw moom lay taxaw di waxtaan ak moom suñuy toog ñun ñooy bokk ba kër bi ñu koy jël si dafa ñëw fekk xale demal magam di añ mu ne mu ne ko mu ne ma yaay na ma ñuy tibbal añ ma ne ko aadama dama ay waaye mi ngi nelaw mu ne comme day nelaw bu ko yee dugg si waa ñu jël plat bi tibbal boppam añ fekkaan ma ma toog mu ne ma tëdd mu ne ma yaay da ngay attaaye nañu ndax yow boo attaayewul sa bopp day mel man ko yit ba kër seet ni soo ko attaaye waaye heure boo du neex mu dugg néegam ba mu duggee néegam boobu la ko police ay fekk yàggul dara ñu jël ko ñu jël si ko mhm. xanaa xaj sax boo ko jël si kër jàmbur di nga di nga wane kayit boo xam ne ni kayit bii dañ maa yónni pour ma jël sa xaj bi waaye doo ñëw jël doomu jàmm jaxat jaxatee rek dugal si biir oto bi taal seen oto dem doy na waar gis ngeen euh, ci lim ñu expliqué rek euh, noonu la fi demee kon dañuy dem seetaani témoignage daal de soit léegi ci waxtaan bi sur la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur waaw affaire bi nag affaire bi ñun ñun sax la njëkk bett mhm. waaw affaire bi ñun la njëkk bett ndax mbirum tuuma moom dafa doy waar c'est que te tamit tuumaal xale boo xamante ni xamul lu dul liggéey bu xëyee alaaji bu xëyee dem na liggéey talul daray wax téléphone bi bu bu bu wàccee si téléphone am lay ne di jeu loolu la xam xamul dara xale la nga tuumaal ko viol dix ans nga bëgg ko ko tëj ci prison bi imaan imaginel loolu noonu lool noonu imaginel ban ban ban xeetu maanaam toroxal doomu aadama la waaye mosu koo bëgg jaas moom noonu def loolu noonu man ak moom ak magu alaaji yi ñoo daan toog chaque jour di teg ataaya di waxtaan di ànd géej chaque màggal Touba ñoo daan ànd ñun ñëpp ci otoom moom jaaz ci boppam ci otoom la ñuy yéeg dem màggali mais problème bi benn jour la tàmbale ci kaw ñun ñëpp ñu génn nekk fii nii si suuf euh, benn magu alaaji Moustapha ak ak beneen magu alaaji Matar ñoo toogoon ci kaw ñoom ñaar di xeex foofu noonu. yow na même fekkee yow nit ñoo xamante ne xamoo leen sax bu ñuy xeex yow xanaa yow ñooñu noonu di nga leen boo leen mënul àtte di nga woo si ay mbokkam ne leen ñii kat ñi ngi xeex defu ko fu mu toog la toog ne pat alaaji yéeg ne ko mais yow grand boo gisee ñii di xeex nii xanaa même boo mënul àtte nga wàcc nga woo suñu waa kër nga leen ñii ñi ngi xeex jaas na ko booy dangaa réew man sama vie boolew ma ci kenn sama vie normal laay vie sama yoon nekkul ci kenn alaaji na ko waa nice na ko yow parce que sa xol moo baaxul moo tax nga mën a supporter loolu noonu ñii ñi di xeex nga toog nekk sa jàmm ñii di nekk fii ci ay ay noonu la problème bi commencé alaaji day yar ay xar ci kaw jaas dafa yor benn mbaaram bi yar xar ak ay ginaar day jékki ba si yàgg si geste bi affaire bi ko booy bi wax noonu mere na ci booy bi xam na ni mënumaa xeex ak kii ndax ëpp ma ko doole ëpp ma ko kàttan alaaji ko gën a féete xale xelam sax nekkul ci a xeex xelam nekkul ci yooyu mais xam na ni carrément kii bu ma jëflanteek moom ci côté boobu damay ñàkk muy tekki xaram xaram xar bu mag la day tekki xaram bàyyi ko xar bi di fifile ci kaw di dugg si mbaaru àllaaji di mbëkk xaram yi def ay affaire paa bi ñëw na ñaari yoon fekk xar bi tekkee ko mu ne ko sëñ bi xar bu tekkee xar boo ko yoree mu doon xar bu mag nekk ci terrasse xale yi dañuy yéeg ñëpp di yéeg xar bi dee ko takk mu ne ko mais kër gi kenn mën amul amul droit dëkk fi yor sa xar di ko bàyyi muy tere ne daal xar daal da nga koy takk rek amoo droit di ko bàyyi muy circuler mais ak xale yi ak xar yu muy mbëkk di leen gaañ tamit nga suuraale àqu dëkkandoo loolu la ci loolu la eenalee alaaji boobu ba léegi du wax ak alaaji def na dix ans du wax ak alaaji xale bi bu ko fekkee sax si boutique muy jënd xale bi du dugg alaaji day taxaw ci buntu bàyyi ko mu jënd ba pare génn alaaji doogu dugg kon kooku mu ngi lay moytu non alaaji ñu ngi déggante dégganteeg moom ñu ngi déggante ak moom waajur yi ñu ngi jóg di di fa dem di xool ci lan la ne mais moom nit ku gëm yàlla la parce que moom bañ waxee lan la ñu njëkk a xamal. Ousmane Sonko mi yor suñu réew mi tey jii dañ koo tuumaal viol te moo yor réew mi lu dul dëgg du yàgg seetaan leen ma ak moom ak yàlla yàlla dina àtte lépp alaaji dafa gëm yàlla xale la barki alxuraadu alaaji xamul dara fettagul sax si nen xale bu ndaw la nga bëgg jël àddina àddinaam yàqu ci un bon jour nii nii nii daal li may laase message bi bay laase autorité yi ak ñi nga xam ne ñoo yor si su réew mi man ñooñu laay adressé ñooñ ñooñu waxal gis ngeen suñu rakk jii nii bu ñu xulee bu ñu xulleewee xulle xulle xulle bañ yàq àddinaam ci ay tuumaal ay affaires yi noo defuñ seen liggéey dañ ci taxaw bu baax nga xam ne xale la yaayam dafa yaakaar ci moom ay famille dañoo yaakaar ci moom dañ ci bàyyi xel te liñ koy tuumaal amul yow 2021 nan ngay violé yow xanaa xanaa xanaa fas sax mënul ëmb ñeenti at fas mënul ëmb ñeenti at dem def ci dossier yi ne da koo da koo violé da koo biiral te xale boobu léegi kenn gisul biir kenn gisul doom kenn gisul dara mais autorité Sénégal ak justice bi ñun fan lañ ne mais même même bu dee viole ak biir ak yooyu yëpp maanaam tuumaal viole dix ans fukki at prison non nit waru koo xalaat teg doom mbo mbokk jullitam même bu dul dara fukki at prison si koo xamante ne xale la alaaj électricien alaaj day liggéey koñ bii nii ñu nekk nii koñ bi boo duggoon ci kër yi kër yi ba mu daj kër yi ñu wër nii yëpp boo fi duggoon xam lan ngay benn kàddu ngay dégg alaaji mosuñ koo fekk fu muy xeexee mosuñ koo fekkee fu muy xulooyee day liggéeyal nit sax fii nit courant day coupé guddi nga yee ko ci ay nalaw alaaji mu jug dem defaral la ko nga koy jox xaalis mun la baax na kon kooku am na am na am am na lu mu bëgg am na lu mu bëgg ci àddinaam quoi waruñoo seetaan ñu yàq àddinaam nii ci ay tuumaal normal sax bu na fi mm-hmm. ah xale léegi mee ca moom paap moom xale bi ñuy wax ne moom lañu violé ñaata at la am kooku kooku toll na ni aadama mi toogoon fi di wax hmm. toog na toll na ni aadama sama góor bi toogoon fi di wax nee na man gisuma ko de ba mu ñëwee léegi gisuma ko waaye nee toll na noonu ki mu ne mooy témoin mooy doomam doomu ki ko jiñ waa paap hmm. boobu doom bi presque mi am juróom-ñetti at doom bu jigéen hmm. kee ba ñu demee pëlis dafa génn naa dem jëli xale ba ñu ne mooy témoin indi ko te ko. léegi bi ngeen demee police lan lañ leen wax. moom loolu lañ dañ ne Alaaji dafa violé xale bi. waaw man tam ma dem si police bi ne ko ak Alaaji lan ngeen mu ne kayit bi de jógewul fii sax ci kaw la jógee. Mhm. am na certificat médical ak yooyu yëpp. waaw ñu ne si kaw la man daal gis naa ñu woon ma këyit bu weex rek. Mhm. waaye dañ man si kaw la jógee. yaa ngi dégg tapaab defaru fii certificat médica bi fii la defaree certificat médical bi defaru ko benn Guinée. Mhm. yaa ngi dégg waaye léegi bu ñu bu ñu bu ñu violé sa doom yow boo xëyee suba doo am benn signe sa doom. te mu nekk ak maamam ci biir kër gi alaaji jël jël euh, xale bi xanaa boo yeewoo suba xale bi di nga gis ci moom si mm-hmm. wala di nga gis ci moom benn benn changement xom dinañ laa laaj ne moo dal mm-hmm. mu ne lii wala laa te ñu ne depuis 2021 waaw ci bés bi ñu ko féyalee laa bés bi ko alaaji féyalee waaw bu dee bëccëg bu dee guddi bu dee ngoon xanaa xale bu xëy na am signe ci moom mm-hmm. waaye bu ñeenti ak si ren la soog a signalé ni alaaji dafa féyalee sa doom xale bi doomu magam bi te xale bi presque ñetti at a ngi ni si dëkk bi jamono ji ñuy wax ak yow ana xale bi mi ngi ci dëkk bi wala ma nga génn xale bi mi ngi ci dëkk bi mi ngi ci dëkk bi mi ngi ci dëkk bi euh, kon li ngeen nekk police si jaabanteeg yooyu xale bi mi ngi ñëw xale baa ngi ñëw biir si biir kii bi kere ba ñuy ba ñuy jël si alaaji xale lañ dëkk yóbbu si biir bureau commissaire la toog bureau commissaire la nekk te ñun gisoo ñoon xale sax dama yaakaar ni man faama bi mu indi sax sama xale sax dem ba ni man xanaa moom alaaji de xanaa faama mii sañse tuuma alaaj si faama waaye nee na faama mooy seedeem mooy seede mooy seed ba muy ba ñuy firéel alaaj alaaj ba muy xale bi faama fekke na ko moo taxaw moo taxaw nee na fekke na ko mhm. moom mooy témoin wax jooju yem na maanaam xam nga wax jooju yemewul maanaam léegi fi mu ne nii alaaji euh, mu ngi 100 mètres mi ngi 100 mètres sàmbu biis yëf yi naka la naka fan la toll fan la toll yëf yi fu mu toll nii ci lan lañ leen wax bi ngeen def li ñuy wax nii ñun aw ba ñu jëlee avocat ba léegi dañoo bàyyi lépp ci loxo avocat bi mën la lii la mën na laa la mhm. ñun xamuñu si dara si dossier bi dossier bi mën lii la mën nañu laa la mhm. xamuñu si dara a ngi koy laajte mu leen koy waaye moom avocat koo xam ne secrétaire am moom doo ko jot waaye boo woowee secrétaire bi jot ko la mu la wax rek man dinaa ñu wax la ko bu dee ay toppatoo yëpp ñu ko wax nee naa la ñu koy waaye ngi toppatoo mhm. toppatoo kayit yi waaw man daal loolu laa ci xam Euh, boobaak léegi nag euh, gis nga alaaji boobaak léegi man mënu maa jàkkaar ak sama doom sama sama sama borom kër neewoon na ma na dem ñaan naa dem ñaani këy waaye man mënu jàkkaarook jàkkaaroo ak moom mm-hmm. waaw papaam nag mooy dem démb nag papaam dem na alxamis gis na ko gis na ko mm-hmm. toog naa ma waxtaan ak moom mu ne papa maa ngi si jàmm maa ngi si salaam damay ñaan yàlla rek fii ma nekk yàlla génne ma fi mm-hmm. teñu te ñu utal ma ay daal ñu ma taxawu waaw Euh, métti na gis ngeen tey euh, lii moo ñu fi indi fii ci fi nga xam ne rek euh, mooy Malika Tali bu xonk muy lu jëm ci wàllum tuuma viol dëkkandoo yu yàgg daanaka dëkk nañu lu ëpp fukki at dëkk jote am na seen diggante muy diggante doom bi nga xam ne mooy alaaji lum ak seen benn dëkkandoo ñu daal di jote bi ñu jotewee nag euh, boobaak léegi dem nañu ba tuddanteetu ñu ku nekk di euh, moytu sa morom mu toll ci lu toll fukki at ak lu tegal du ñu wax euh, waaye nag ci seen i kàddu nee nañu waa ji à chaque fois da ko doon wax ne bés bu ma génnee ci kër gi dinaa la tëj bés bu ma génnee ci kër gi dinaa la tëj toxu na laata ñuy julli muy tabaski bi Euh, bi tabaski passé ñu daal di euh, toog bés mu daal di ànd ak euh, ay takk der daal di jël si alaaji dugg si ne kii mooy alaaji boobaak léegi nag ci lañ ko jël xale bi yóbbu ko ci say kàddu yaay booy ngeen ne bi ñu koy jël si waxuñu ko waxu viol waxu viol bi fee lañ ko yégee président euh, président moo la soxla. Mhm. commissaire moo la soxla. moo la soxla mu jóg. Mhm, ma bëgg koo téye mu ne ma yaa damay dem. Mhm. ndax yoon ku ñu woo da ngay wuyu. bàyyi ma ma dem sàccu ma fenn ma reyu ma nit jaayu ma doog yàmba damay dem wuy ji leen. moom mi ma jël si man di ma signalé maa ngi nii bàyyil ma dem. moom mu dem. dem ànd ak ñoom moom mu demee ànd ak ñoom nag la paap nag soog ay ay bu ñu jullee gee ba gee paase soog la soog a ne du ko viré doomu magam doomu magam euh, kon ci loolu la jóge nag ba tax na alaaji lu moomu jamono ji may wax ak yéen mi ngi fële ca 100 mètres Euh, comme ni ko yaayam waxee rek euh, sonn na jaaxle na ndax dañoo jël li gën a sori si moom muy ah. doomam bi nga xam ne tey jii euh, bëggoon na ko bëgg ba nga xam ne di ko jàppale ba tax nag muy woote li nga xam ne rek mooy wallu képp koo xam ne mën na ko cay jàppale moo xam ci avocat moo xam ci taxawu moo xam ci ñaan moo xam ci lum ci mën ci doon ndax ji boo waxee danaan mën na teg loxoom ci kaamil waat ne gisul sax xale bi waaw ci ni mu gën a leeree. moom ni mu leeree dafa ne man ku ma jox kaay ma dóor sama loxo sama loxo sama baaraam mosut laal yaramu xale. Mhm. ba pare na taxaw sax di wax ak moom. Mhm. Euh, yaay dañuy dem seetaani témoignage euh, jabaru magam bi nga xam ne moom ak waa ji ko tuumaal ñoom ñoo doon ànd léegi léegi daal del soit léegi ci waxtaan bi sur la 7 bi ci seen émission 7 voix du bi moo dëgg yàlla ba mu ñu ba mu ñu kiyee moom dañoo bett torop lu ñu tiis la tamit. dëgg yàlla moom billaay moo kooku moom affaireu xar lañ jote daanaka moom yàgg na du ñu wax moom loolu moom yàgg na da koy moytu di ko moytu tout le temps dëgg yàlla mais ba benn jour sax ba si alxamis bi muy yónni ànd ak policier yi ñëw ba fii muy fekk sama wujju peccar ko bi di sangu man moom mu ma fekk dama doon nelaw mais dama jug sama rakk bu jigéen woo ma bu ndaw ne ma am na kii de diw ñëw na diw ñëw na ndax moom daanaka ba ñuy waaj tabaski semaine rek. moom dafa tuxu tuxu bi nag jaaxal ñëpp ndax daa bàyyi ba jour bi muy dem waxu ko kenn yaay jee jékki-jékki rek ne dañuy dem ki ko jiiñ viol tuxu bu bett waa koñ bi yëpp ba ci ñun ñi ba ci étage ndax mook sama jëkkër ay xaritu benn bakkan lañ ñooy ànd mooy kii ma lay wax nii baakar yi ñooy ànd ba ci màggal bi passé mooy magu alaaji moo kooku kii ko jiiñ viol ñooy ànd xaritu benn bakkan lañ pap siini sekk léegi nag ñoom ñoo doon daanaka màggal bi paase sax ñoo ànd. alaaji moom mujjuñ fi yol moo leen indil berneel yi palaat yeeg lépp suñu fi ñuy dal tuubaa lépp moo leen koy indil amul aman daal affaire yi daf maa jaaxal ba si alxamis boobu mu ko jël see man ma génnee man damaa tiit sama rakk bu góor bi moo doon toog fii sëñ Saliou daa tiit sax taxaw léegi mu ñëw. xëcc fekk na ma fi waaw maa ngi taxaw si bunt bi sama caatu yaay moo ma woo Penda ne ma kaay xool diw ñëw na diw ñëw na ñu tiit parce que diw boobu du wax ak alaaji ba xam te ba mu fi toxoo yàgg na même sama xaritu jëkkër la mais du dugg ci kër gi jékki-jékki def brisement njëkk a dugg fekk sama doom bu góor mi ngi taxaw sëñ Fallou mu ne ko sëñ Fallou mu ne ko ah mu ne ko an sa papa alaaji mu ne Fallou ne ko mu ngi si biir mu duggal boppam ba si biir néeg bi ne ko alaaji ne policier yi taxaw si ginnaaw mu ne policier bi kii mooy alaaji kii tëdd alaaji tiit jug taxaw mu ne ko maire bi tombé maire bi dafa demoon tuur bay soog a ñëw mu ne ko lan la baa jàmm la mu ne ko jàmm la rek daa am luñ koy laaj noonu ba nii nii lañ ko gëjee gis bañ ko yóbboo noonu ba si ay timis la maire bi jékki-jékki gis magam yi di yuuxu mu ne leen baa jàmm la ñu ne affaire viol la mais ñun ba muy dem sax parce que xale bu góor électricien la ñu ngi yàq jàpp ne ba mu daajee peut-être mbaar bi kaw ay affaire mbaar lay wax wala ay courant man peut-être wala daa dajeeg moom saaga ko man loolu laa tegoon mais affaire dañoo bett ndax xale bu góor bi du génn liggéeyi la xam boot saagam ñëw wóor na Mouhamed téléphone am gel sax amu ko wóor na yàlla dafa ragal léeg dañ koy tooñ ne ko sa jabaru mag yëpp am na doo takk mu ne ah man du ma takk gum ndax doomi jàmbur doo ko dem jële kër jàmbur indi ko sa kër te amoo loo ko yoree di ko sonal man loolu duma ko def balaa may takk soxna naa am sama métier bu gën a kii bu baax fu may taxaw soo ko takk doomi jàmbur maam vingt 2021 la fi ñëw boobu sama doom bi ma ëmb boo wasin ku jigéen ki Anta amagul 2 ans te anta ren nii am na essant yi ñaari at anta boobu boobu ëmbaguma anta defaguma ko dara boobu wax dëgg yàlla sëñ Fallou laa yoroon moom laa yoroon 2021 man moom laa ko gëj a gis te daanul duggante kenn parce que France la yoroo woon après tamit ba mu yoroo France jékki-jékki ñu indi ko fii ci papaam parce que xam nga rek yaa ma gën a xam xale français yi. mooy loolu ñu indi ko fii ci papam Guinée ndax ñu nekkee woon France ak yaayam ak yooyu mooy loolu dafa xaw a dëgër bopp ñu indi ko fii ba ci maamam maamam xaritu mère bi benn bakkan la. maamam fii lañ dëkkoon troisième fii ñoo dénd appartement xaritu bakkan benn bakkan. wax dëgg yàlla man alaaji moom xamul xale bi alaaji xamul xale bi gisaanul xale bi. wax dëgg yàlla ku deeg sa bàmmeel alaaji xamul xale bi alaaji fii duggee nag bu xëyee timis lay wàcc wala mu wàcc 18 heures te jour boobu ñu ko jàppee sax alxamis boobu dafa bëggoon sangu di xaar sama wuju péccoor bu tudd awa seen génn pour mu sangu yónnee saabu carotte bu sangu la tëdd pour bëgg a sangu fa lañ ko fekkee ne ko solo sa yére ñu dem ba nii ba sànq lañ ko mujjee gis waaye moom amut ak xale bi benn affaire xale ba mu fi ñëwee matul sax weer dafay ñëwoon ci maamam ba ñuy wàcc tabaski tabaski wu fi sax daanaka ñu indi ko ci moom la ak maamam ak pa ak ki rakku papaam ki tudd Pape Seck ñoom kese ñoo newoon ci appartement bi ñoom kese maam ji bu xëyee léeg-léeg day dem daayra mu nekk fi rakku papaam la fi nekkal ak xale boo xam ne 9 ans mook sama doom ñoo amassé moom la fi nekkal. xanaa daa moo sekku boo xam ne depuis 2021 moo nekk fii xam parce que ñoom dañuy bëgg affaire tubaab. sekku bi la doon kii mu ñëw ne salaam ku moom sekku bi ci français. boobu sama ju péjor ko bi newoon ci néeg bi sax dem na mbooro marem ñu ne ko ku tudd alaaji moo ko moom loolu la xamee tur alaaji sur li ñu mën a wax 2021 seku moo tax te seku ba sax dee na bu yàgg ba ma am fi doom bu am ñaari at wax dëgg yàlla ku deeg sa baam bi mm-hmm. yaayu Pape Sini ak meer Ndiaye ay xaritu benn bakkan lañ billaay walaay jàmm ak salaam ba nii mu toxoo ah waxagu si dara ñëw fi yónnewu fi waxagu fi dara magu xale bu jigéen kenn ñëwu fi man kay affaire yi moom li ma mënoon ñaan moom ñu jàppale ko parce que dafa metti nekk ndaw tamit ñu jiiñ la viol yóbbu la si noonu te def la mandat dépôt xamoo kañ lañ lay génne dafa metti parce que Sonko ngi nii sax moo ñu ëpp xal alal ëpp ñu daraja te bañ ko jiiñee tamit dañ ko àttee par force mu sonn ba bëgg dee waaye ba ko yàlla jeexalee nag jeex na suñu borom nag moo leeral moo mën a leeral ñu ngi ñaan yàlla ak yonent bi nga xam ne mooy leeral juge bu gën a mag mooy suñu borom moom kese kese kese moo mën a àtte liy dëgg ak lu dul dëgg suñu borom moo ko xam mais yàlla na suñu borom leeral dimbali ko mu dellu siwaat si fameem nekk en forme tamit liggéeyal parce que métti na tamit way jur bu si ne muy mën ak keneen ak keneen képp ku jur doom ñu jiiñ ko dara du la du doon du la du doon du la neex daal dafa metti si ndax doom dafa metti te dafa jege yaayam c'est trop te fan yëpp ay parents am pour ñu lekk sa problème la magam yi góor yi pour ñu xëy sax wóor na Mouhamed koo si ne xëyal mu ne la déedéet ma ne ko ah il faut ngeen liggéey parce que ni ngeen a yor njaboot tamit yor doomi jàmbur yi il faut ngeen tamit lii mais yàlla baax na yàlla jomaay mi nga xam ne moom la yàlla dénk réew mi na ci jàpp ak première ministre Sonko li nga xam ne lii lañ ko tuumal sonal ko sonal ko ba tey yàlla do jot mu jot réew mi yàlla na ko suñu borom saafara loolu donc laa si laasé wóor na yàlla. jërëjëf kon nag noonu la yëf yi demee ba fi mu ne nii ñuy wax ak yenn euh, alaaji lu moomu man nga fële ca Samet fan la yëf yi di mujjee xamuñu ndax nag euh, affaire viol dafa xaw a sensible dafa xaw a doy waar buñ la ko jiiñee te du yow sax. Euh, fit yi day daal di euh, maas ndax nag euh, pen ba waxatuma la nag tey ji ki nga xam ne taxaw na nee na carrément du moom te nag ñu bëri seede nañu ci fi ñu nekk ni ci seen diggante ñoom ñaar maanaam jote bi nga xam ne moo fa nekkoon ak haine bi rancune bi ci seeni kàddu loolu lañ fi jëlee ba tax na rek ñu bàyyiwaat yaayam mu àddu ci li nga xam ne rek mooy doomam boobu di pa di Alaaji Lum Alaaji Lum de du xeex du xuloo soxlu alalu jàmm bañ nañ ko ba jabar magam sax bu ñu ko nee ah, alaaj ngay ngay takk de mu man saag bi mooy sama hmm. damay fas yéene liggéey ma yor ba am sama alal takk sama jabar mën doomu jàmbur waaw jigéen ñi léegi dañ lay tàddeel damay liggéey man liggéey laa bëgg liggéey laay bu génnee kër man la bu fi duggatee laa ay 11h minuit day ñëw tëdd soo nee alaaji mu ne reeraguma léegi nelaw bu xëyee tànk ndox sangu wékkoo saagam dem billaahi wallaahi wa taala mhm. lii ko pap jiñ nag dama koy bàyyi ak suñu borom mu jël nag li gën a sori si man masa yaay masa ndax ndax jéem nga woo ndax jéem nga woo meer Thiam moomu euh, sa dëkkandoo la euh, ci li nga wax moom mooy yaayu ki nga xam ne moo ko tuumaan ndax dëkkandoo li ñuy wax jàmm rek a ci gën ndax jéem nga woote waxtaan ak ñoom wala dara. mais jàmm woo ma ko yaa ngi dégg ndax lu duma ko woo. Mhm. ndax tey mais jàmm tey bu Pape defee lool te bu moo jur Pape Pape def gis ji dafa war a sol daal ñëw ba si man. li mhm. ma lii Pape def de. mais wóor na la ne yëg na ko. waxuma waxuma dara. wóor na la ne laa yëg na ko yëg na ko. yëg na ko yëg na ko mag ndax na moo ak ñoo bokk kër mhm. yaa ngi dégg ni ko lii Pape lii Pape def de sant ma ko tey sant ma ko ëllëg mhm. te def na lu ñaaw waaye defu ko magam bu jigéen romb na sama goro bi Pape bi kër bi si ñu yóbboo alaaj ci guddi gi la romb uh, awa seen sama goro bu góor ni ko alaaj di gis nga mu def sama si gis nga lu mu def ci ñu doom mag gi waaye si bi lay dee mhm. moom fa awut loolu la wax si kaso bi lay dee pape tamit loolu la ko wax ni ko si kaso bi ngay dee yow si kaso bi ngay ngay dee te dootoo génn kaso ndax yàgg na koo menacé loolu dinaa la tëj si kaso bi dinaa la tëj léegi tëj na ko si kaso bi nag mun na ko si kaso bi ngay dee magam bu jigéen taxaw tamit dëggal loolu moom kon kon nekkul pape kese moo ko wax ne euh, xale bi dañ ko violé ci seen famille pape rek moo ko si wax moom viol bi hmm. waaye nag magam ju jigéen dëggal na moo romb sama sama goro si bés bi gën yóbboo alaaji mu ne ko alaaji mi de gis na lu def ah, suñu doomu mag gi waaye si kaso bi lay dee loolu Farouz moo ko wax. te loolu nee nañu moom mi nga nee tëdd sa neppi guddi ñeenti at ba léegi te ñeenti boobu xale yi juddooguñu ñaari xale yi ngi taxawaat fii juddooguñu. Mhm. xanaa ku ci ëmboon sax wasin nga. Mhm. ku ci ëmboon sax xanaa wasin nga. xanaa looloo indi waxu ëmb bi nga xam ne sa frère am bi wax na ko. waaw xam naa loolu moo tax moom tam mu wax loolu mu ne xanaa ñeenti at yooyu. Mhm. bu fekkoon nga see ëmb sax xanaa wasin nga ba doom gi dem yoonam. comme dañ koo violé. bu fekkoon ñeenti ak yooyu ëmb jëlee na ci ëmb jëlee na ci ëmb ka na xam kon wasin na si téemba daaw ya looloo tax sa magam frère boobu wax loolu dañuy dem déglu frère frère boobu laata ñuy tàggatoo ak suñu yaay ji nga xam ne jamono ji mi ngi dund lu metti mi ngi dund euh, nakar wéet waaye moom waxul ni moom euh, si jëm boppam mhm. euh, paap nee na da koo ëmbal de waxul loolu dama ne ku fi ëmbaloon mhm. xanaa bu fekkoon ëmbal nag ba mu ko véralee xanaa bu fi ëmboon tamit ba léegi xanaa am na fi doom jërëjëf allah ji sama doom la sama kër lay fréquenté mook sama doom ñooy ànd man alaaji xamaluma ko lu dul jàmm vraiment xeexul xuloowul taxawàlluwul sama kër lay ne kër yaayam bu wàcc bu jógee kër yaayam sama kër man loolu laa xamal alaaji mosuma ko gis nag mu ànd ak jigéen mosuma ko gis mu toog ak jigéen sama àqulaay taalaa laay wax nag tuumaal bi daf ma jëlee kaw parce que koo mosul gis muy dox caaxaan ñu tuumaal ko affaire bi dalay lay kaw musuma toog mu wax ma waxu jigéen man sama kër sax kenn foo waxu jigéen sama doom sax mu muy àndal dugal sama kër jigéen kon nag moom du dugg sama kër dafa dugal jigéen wala bu may wax waxu jigéen sama dëgg rek laay wax musuma xam ne sax du wax ak àllaaji musuma ko xam musuma xam yëg musuma yëg sax ni dina wax ak àllaaji du wax ak moom bu affaire yi amee daal laa xam ni ndeke ne daawul wax ak laaj sama borom ko dafa feebar waaye day ñëw di ko soulager di wax ak moom di ko reetaanloo muy ree dana ma metti nag trop ndax lu ma manqué la alaaji dafa ma manqué waaw xale la daal boo xam ne bu yaru la bu teey wax nànk dox nànk déggoo man la mook sama doomay ànd mais mësuma leen a gis si dara lii laa xam si alaaji su ma ci xamoon loolu dam dama koy wax ku sañoon sa doom di nekk sa wet doomam bëgg dafa bëgg yaay moom dafa bëgg yaay Alaaji dafa bëgg yaayam trop trop trop ba man xam naa ne dafa bëgg yaayam ni mu bëggee yaayam noonu la ma bëggee loolu laa xam si Alaaji baax na tee na yaru na maa ngi ñaan daal autorité yi ku ku si mën a jàpp na dimbali yaayam ndax yaayam xolam tooy na metti na te xol du oom ban koy bës waaw maa ngi ñaanal képp koo xamante ne rek ku baax nga si réew mi nga jàppale sama doomu nday ji nañ ko jàppale si mu mu gën a gaawee ndax xolam tooy na te xolam metti na te bu yàggee dana ko indi leneen waaw dama koy ñaanal nag yal ko yàlla may xolu muñ yàlla ubbil ko xéewal ba doom ji ñibbis suñuy loxo si kàttanu suñu borom ñoo ngi ñaan si barke juróom-ñaari sëñ fàllu mbakke ñi yaakaar yàlla ñu tetteet suñu doom ji ba mu ñibbi suñu loxo jërëjëf euh, kon nag euh, ñu ngi koy euh, jaajëfal bu baax a baax moom moom moom tamit yaay booy comme ni nga ko waxee rek nee na bu fekkoon tey jii da dafa yegg ci kawam ba mu sax ëmb kon xanaa nag ku fi ëmboon sax wasin na mooy maanaam 2021 ak léegi yàgg na. Mhm. loolu la loolu lay expliqué loolu la loolu la magam di expliqué. Mhm. waaw. yaa ngi dégg waaye ku ñu viré rek ci àddina yow ki ko daa sax bu ñu la mayee jëkkër soo ba xëyee suba. yow di nga changé doxin sa waajur xam sa jëkkër jël na la mhm. bu la sàccee indi la xam nga xam jël na la mhm. waaye pap daal la mu doon wax sama doom dëkkal ko ci noppam dinaa la tëj si kaso bi dinaa si kaso bi tey lii la def mhm. mu tëj ki nga xam ne dafa sooy si man mu sama lépp nag alaaji bañ naa ko xool lu ma soxla damay def daal ne ko ay mu ne ma yaay xanaa man doog maa nekk si kër gi ma ne ko yaay sama caat yaa fi nekk ndax ñi ay mag bu ma leen sante dañuy an sa caat vendeur bu tilimee bu ma alaay kay wàcc mu wàcce fëgg kon Pape tey li mu li mu li mu li mu def man sama xol la jël. li ne mm-hmm. nii fii nga ma fekk ma tëdd. fii laay tëdd dañuy yekk añ sax damay dem bay sukkoon di añ rek. mel ni mënumaa lekk. Mm-hmm. talaaj toogu si bool bi. Mm-hmm. suñ tegee añ su ma fekkoon si ma tëdd sax dama yaay jógal soo añoo du ma añ. da ngay génn toog si bool bi ñu añ mënoo ko nga tëdd ma dem tëdd sama néeg. ma ngay alaaj bi laay alaaj yaa ma la jël alaaj bi laay bàyyi man a suuf naa mënuma di nga yeewu di nga añ. damay toog añ ba pare mu toog ñu añ mu soog a dem dugg néegam li ma mën boole moo tax bu ñu tegee bool bi rek bu sama xel dewee ci loolu rek mhm. sama biir day fees su ma xëy su ma ba ma nee su ma toog ndékki mbaa ma toog añ ma toog reer kenn xamul kañ la mhm. kenn ko yóbboo ba léegi sama àddina yëpp daa jeex te léegi mu am fa weer am na fa trois semaines waaw sama àddina yëpp daa jeex àddina bii bëggatuma yi dara masa sama àddina man bëggatuma daal si àddina ndax jëf ji Pape def sama doom ji jëf ju ñaaw ji mu def sama doom ji loolu moom a métti. métti na ah. euh, tey jii euh, lan ngay lancer appel pour ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan euh, di fàttalee tamit ne ñun dañoo ñëw fekk suñu yaay mu nekk ci njàkkare mooy maanaam tey jii tuumaal nañu doomam viol moom la wala du moom fi mu ne lépp ngi ci loxol yoon. waaye nag li nga xam ne moom lay dund mu ne ci xolam mu metti lool ba tax na cette fois di que ñu ànd ci ak moom mooy li nga xam ne rek mooy affaire viol bi euh, newuñu nag kii moo am dëgg newuñu kee moo am dëgg xamuñu ko am dëgg fekkewuñu yëf yi nu mu demee xamuñu nu mu demee ba tax na tamit képp koo xam ne tamit sax ne bëgg nga euh, maanaam leeral li nga xam ne xam nga ko ci affaire bi boo ñu boo ñu contacté ñu daal di lay tàllal micro yow it nga wax li nga xam ne yow it moom nga jàpp ne mooy dëgg wala li nga xam ne mooy sa dëgg faruñu ci A faruñu ci B situation la ñu fekk muy yaay joo xam ne euh, jaaxle na euh, xolam tooy na ndax doomam mi ngi ko doon jàppale bu dee juróom sax mu ngi koy indi di ko jox euh, jote ak nit ci li ñu wax seeni kàddu ñu daal di koy tuumaal viol moom la wala du moom loolu ci yoon lay euh, feeñee waaye nag képp koo xam ne rek 7TV euh, maanaam bëgg nga ci li nga xam ne rek mooy leeral wala dindi leen loo xam ne teg nañ ko sa der te du moom ubbil nañ la suñuy micro kon nag euh, noonu la demee yaay booy laata ñuy kii rek. man xam naa ni man man maa jur alaaji de. Mm-hmm. waaye man koo indi ma teg sama jàpp ba sa jublu fekk sama loxo ah man naa man man mi jur alaaji mën naa nekk sama tey ma mm-hmm. ma set jàpp ba sël ñu teg kaamil ma jàpp dóor sama loxo xam ne alaaji du alaaji. dañ ko koo tuumaal Pape da koo tuumaal waaye allah du genre du genre góor yooyu. Mhm. parce que Seydina Mohamed. Mhm. waaye man nag sama jëm bopp. témoin yàlla mooy mooy lépp. man yàlla mooy sama témoin lépp bàyyi naa ko solo loxo suñu borom. Mhm. yàlla muy yàlla miy leeral na leeral lépp lépp na leer. Pape li mu teg sama doom gi yal na ko yàlla teggi. si mu gën a gaawee. may ñaan nag ndimbal. bàyyiwuma kenn. ñëpp laa tàllal samay loxo kilifa diine yi kilifa aada yi ñëpp rek man tàllal naa sama loxo ba ci président ba ci premier ministre koo xam ne yaa ngi si nguur gi rek dégg sama kàddu gi rek tàllal naa samay loxo ak mboolootu jullit nag ak ñëpp nag ñoo xam ni rek bàyyiwuma commissaire bàyyiwuma police bàyyiwuma juge bàyyiwuma avocat bàyyiwuma kenn mm-hmm. ak ay ñaan tamit sama sama doom mm-hmm. waaw ba yàlla jël fa mu nekk mu dee si samay loxo. lan moo la lan moo la lan moo laataa ngay tàggoo euh, metti na Massa yaay lan moo la gën a manqué ci moom. wéet gi ma wéetal. Mhm. man maa moom ñoo nekk si néeg bi néegam ma nga fee waaye bu fexee ba wàcc sama néeg lay te am na télé rek walaay mënoo yem sa télé mënoo sa télé bi yaay tëdd yow bu la bàyyee fii rek da ngay doo wax ak kenn. Mhm. parce que Seydina Mouhamed day daw nekk ak man fii si néeg bi tëdd ak man fii ñuy waxtaan mu teg fi attaay taal tey su ma demee ba jënd wifi bii yàlla ak moom moo tax bëgguma mu dem ci kër benn kër moomam mhm. di fa am xaar ma yàlla déedéet man sama doom lu mu bëgg rek dama koy bëggale ndax bëgguma mu jël muy xool alal jàmm mbaa mu du kër jàmm am fekk fa loo xam ni seen kër amu ko fa mu leen koy ñee mhm. mu xëcc bi moom ba mu ñëwee wàccee man ma yàlla da nga xëcc ma ne ko xëcc naa ko léegi nag bu weddee faya la mu ne ma amul benn problème mhm. yow li tax nga nekk sama xarit mhm. sama néeg bi du ko génn alaaj xamul taxawaalu xamul def fenn mhm. jigéen mos ta jógee fi dugg si kër gi ni alaaj lay seet si àddina mos taam ci àddina lan ngay tàggoo duumaal sama doom tuub bii banaan lekk si loxo suñu borom lan ngay tàggoo waaw li may tàggoo nag maa ñaan yàlla rek alaaj fa mu nekk yàlla génneel ma ko nu mu gën a gaawee te tuuma gi Pape teg sama doom bii yal na ma yàlla àtteeg Pape ba lépp leer la mu yéene alaaj si lu bon ba nag ko tëj si kaso bii dëkkal ko si noppam rek naa nga tëj si kaso diiru gu dund dootoo génn kaso bàyyi naa ko ak yàlla mhm. yàlla mii ba naa ko sama doom ji lu lu lu yàlla naan si moom nag ah bu dee lu baax yana ma ko yàlla leeral la mhm. paap nag bàyyi naa ko ak suñu boroom paap bàyyi naa ko ak suñu boroom li mu jël si man nag lu sooy si man la jël mhm. sama biir xol xol sama xol la jël te xol mooy nit loo jël si xol rek deetoo dara si nit ki man sama xol la bu doon ngeen sama doom ngeen doom góor sax amul problème waaye man alay man maa ko bëgg sama mooy sama mujjantalu doom muy sama caat waaw dañuy xuloo dañuy def lu nekk àndaal damay xuloo moom tëdd fa mu fekk ndax yaay sama xañeef naa kon sama alay fee mu nekk man defe naa tànk alay yi génn man dootuma nekk nit. macha allah macha allah loolu rek laay ñaan yàlla. te sama doom mu gën a gaawee fa mu yal na génn fi mu nekk ci nu mu gën a gaawee métti na trop euh, ba tax na rek euh, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax gis ngeen ni ñu leen indiloon tey ci seen émission 7 voix du sur la 7 bi muy euh, lii nga xam ne rek dëkkandoo bu yàgg la nekk ci jàmm. kii bu amee xew kii moo koy taxawu kee bu amee xew kee moo koy taxawu ñu dund dund bu rafet dund ay ati ati at nekk ci jàmm ba ci sax mbokk yi nga xam ne ku ci jóge sax bitim réew da ngay ñëw seet si sa moromu dëkkandoo daal di koy jox sërite kon loolu dëkkandoo bu rafet la woon gis ngeen tey ni mu mujj ci li nga xam ne rek mooy mbirum seytaane euh, ci jote bu ndaw boo xam ne rek sa xar fii nga koy takk sama xar fii laa koy takk mu indi jote boo xam ne dem nañu ay ati at duñu wax lu tolloog fukki at alaaji ak ki ko tuumaan nii ci seeni kàddu nee nañ duñu wax ba nag euh, ni muy ni ñuy déggee mu koy wax à chaque fois ne dinaa la tëj ci kaso dinaa la tëj dinaa la tëj mu doonoon loo xam ne gëmu ko woon benn yoon waaye ci lii ñu gis gis nañ ne euh, tey jii euh, loolu am na moo ko defam defu ko ñun xamuñu ko def euh, yàlla rek moo xam ak ki nga xam ne rek tey jii mooy maanaam ki ñu tuumaal kon nag ñuy ñaan rek suñu borom mi nga xam ne mooy leeral yàlla na leeral lépp alaaji fi mu nekk yàlla na génn ci nu mu gën a gaawee waaye nag di wax ne rek képp koo xam ne rek bëgg nga leer duñ la tëjal bunt benn yoon ñu ngi lay déglu si si micro 7 TV euh, ñu ànd ceeg yéen rek ci seen émission 7 voix du kër euh, kon euh, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax. jaajëfal bu baax euh, Kébé euh, ak Isapo yi ci wàllu cadrage bi jaajëfal waa montage waa production si euh, logistique bi Kanté ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di leen wax ñu ngi leen di jox di daje mardi incha allah ci beneen numéro 7 voix du cœur sur la 7 TV si là portez-vous bien kon nag merci beaucoup fi amaani la jàngeen ngeen jëf maman ñu ngi lay ñaanal sa doom bi yàlla na dellu si waat ci sa loxo nu mu gën a gaawee jërëjëf merci.